salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñëw ak yéen ci benn waxtaan bu gàtt avant ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihun ñu ngi jaale képp koo xamante ne rek am nga mbokk boo xamante ne bokk na ci jéeye bu metti boobu nga xamante ne moo am foofu ci Kaffrine muy lu doy waar loo xamante ne fu ñu ko natt weesu na ko ci sàggante waaye dafa am laaj boo xamante ne dañu ko samp di ko laaj di ko laaj sénégalais yi di ko laaj àdduna bi lii accident la walla assassinat lii accident la walla assassinat maanaam lii ndogal la walla tayeef la lii lu yàlla dogal la wala lu nit sàgganee la ba wala lu nit tay la lu nit waajal la ba def lu nu mel lu jara laaj la ndaxte fi accident bi am di ligne droite ligne droite maanaam dafa mel ni mur ñaari oto yi amul lenn loo xamante ne moom moo la waroon fexe ñaari oto yi mën a laalante amul lenn lu waroon mën a fexe ñaari camion ñaari bus yi nga xamantene la lanté ndax liñ continue bobu bobu dañ ko considérer comme mur maanaam ku tek liñ continue dafa melni liñ droite bobu dafa melni ñaari auto yi sax waru ñu mëna gisanté kon mu nekk lo xamantene lu doy war la motax tax ma sampalaaj di wax ni li tayef la accident la wala assassinat ndax Sénégal dafa nekk dëkk bu doy war nekk dëkk boo xamante ne en général du ñu jàng ci li nga xamante ne mooy li weesu batalo Joola amoon na fi batalo Joola amoon na Sénégal yàggul dara batalo Joola amoon na fi boobu tamit bi mu amee dañ ne woon lii assassinat la wala li nga xamante li moy accident lolou yop nak comme jàngeewuñ ci ñi nga xamantene ñoy ñi ñu faral di jité lepp lo xamantene dañ ko tek ngir seen nguur sax fi ci loolu lañuy dox ñun nak dañu nek peuple bo xamantene dañuy fàtte dañu jël lépp laxas ko ci yalla baxna duñu jangé dara ci li nga xamantene moy li am ak li wessu ak li wara ñew duñ ci jangé dara dañu jël lepp dal diko taf fi nga xamantene ne yalla baxna baax te ñi nga xamantene ñom ñoy ñooy yalla baxna du ñom ñoy jël ci bis yoyu du ñom ñoy nek ci li nga xamantene ni moy exposé wu ci loolu nga xamantene ay jé yu faral di am la kon bu fekkee bëgg nañu suñu réew mi war nañu am benen doxilin wala benen taxaway bo xamantene war nañu ko am ki nga xamantene nek nek ci bop réew mi accident bi dañu koy laaj lii accident la walla wala assassinat prémédité la wala lu ñu waajal lu jara laaj la xool leen li nga xamante ne accident bi ni mu amee nee ñu roue avant roue avant bi nga xamante ne mooy côté conducteur moo éclaté te roue avant boobu bu éclaté quelle que soit la situation oto bi du def sortie de route oto bi dafay nekk ci chaussée bi lay nekk maanaam day nekk ci kaw tali bi forcément dafay mbëkkan dafay dafay jéem a traversé beneen côté boo xamante ne ligne continue boobu forcément oto dafay ñëw mais bus yi xanaa dañ ci defoon ay GPS yu ñu synchronisé xanaa bus yi nga xamante ne ñoom ñoo mbëkkante ba suñu ay doom dee ci suñu ay waajur dee ci suñu ay rakk dee ci suñu ay jarbaat dee ci xanaa loolu dañu synchroniser li nga xamante ne mooy ñaari bus yooyu xanaa dañ leen synchroniser amul beneen oto bu ndaw boo xamante ne mom bi bis bi di éclaté ñom ñaar ño waran jakk mais pile poil est-ce que yéen ngi jangat ci li nga xamantene moy accident bi xew motax ma samp laaj wax ne li tayef la accident la wala assassinat xam nga yalla bu joxé doomu adama xel c'est que pour muy xalat la ñi nga xamantene ñom ño xam ci walum accident ñom lan lañu relever ñom jamono ji lan lañu wax ndogalu yalla lañ ko tek ñom ndogalu yalla wala préméditation wala lo xamante lu nit bëggoon def la amal ko la da ngeen di xool fi situation bi nekk ndax waa ji nga xamante ne moom moo jiite mi 31 décembre gis nga li ko gars yi def désavoué ko complètement léegi sénégalais ñu ngi leen di gëmloo ne ay casserole ay casserole ay tëgg weñ loolu moo tax lii am ay casserole loolu moo tax am mais kon est-ce que sénégalais yi seen bopp yi am na lu ci nekk ñun sénégalais yi est suñu bopp yi am na lu ci nekk sabar gi mel ni tull ak mbàlle ñi ña ngay simba fii ñi ña ngay fii ñi ña ngay làmb fii lu ne xew ci réew mi kenn waxul ci lu nga xamante ne mooy jee yi am ci wàll yooyu ñu bëgg a ñëw taf yëf yi ci wàllum yéen a fi doon tëggi ay pot yéen a fi doon def lii doon donc noonu kon président li ko gars yi def moo ko metti ba mu wut ay waxkat yoo xamante ne ñoo taxaw tey di wax jéeye bi nga xamante ne nii ma koy sampaat di laaj accident la wala assassinat ñaari bus yi xanaa dañ ci defoon ay GPS yoo xamante ne dañu war a synchroniser le moment venu bus bi ma xamante ne côté conducteur dinañu éclater pneu bi pneu bi éclater waa ji du mën a def sorti de route du génn tali bi mais dafay traverser chaussée bi ci ligne droite boobu ba bu jàkkaarloog bus bi nga xamante ne du oto bu ndaw du saret du leneen lu dul bus bo y ya na ñu melni ñom ñaar dañoo joxante heure bo dalante dafa ñu samp ci donc où sont les enquêteurs est-ce que zone c'était une zone accidentogène il faut voir les choses sénégalais yi nañu jël suñu xel diko nas diko nous di ci ni ne askan wi la ñu ci dañ ñuy nax parce que 39 personnes ñoo fi waye buñu faté né 400 suñuy dom jaar nañ ci géej gi ci xam nga ñun histoire duñ ci dàll dara fi lañ fi en 2002 bateau la Joola bato boo xamante ne personnes la wara jël ñu def ci pratiquement 2000 et quelques personnes boolewuma ci marchandise yeeg yeneen ak yenen yu néwon ci biir lolu accident la won wala tayef la won loolu accident la woon wala tayef la woon kon xam nga dañu nekk peuple boo xamante ne tey Macky Sall mii li mu nekk parce que tey wax nañ ne Macky Sall jamono ji am na nguuram foo xamante ne toll woon na fa ba kenn joxatu ko bopp léegi moom bu waree existé waat jëlaat li nga xamante ne nii mooy plateau télévision yeeg média yeeg lépp jublu ci moom hôpital bu bees boobu lay nekk di def li nga xamante ne mooy propagande ba jël accident bo xamantene dañ ko programmé ndogalu yalla la wala luñu programmé la quel que soit alpha hôpital hôpital bi hôpital la bo xamantene propagande bi jall na saf na sap propagande bi saf na sap ñaari bus yi bi dafa Dakar ñu montel ko GPS bële jóge Tamba ñu montel ko GPS ñom ñaar ñep wara daw ba wara djégé lo xamantene ki mu ngi daw euh, nangam ci vitesse di daw nangam ci vitesse ba bi au moment bu pneu bi di éclater bële warul mën a nekk excès de vitesse wala benn vitesse réduite boo xamante dina mën a taxaw bii bu traversé duñu mën a dalante wala dina am temps boo xamante dina ko romb wala loo xamante ne nii dafa am oto bu leen topp ñëw ba ci au moment opportun mu door fii bal pour éclater pneu pour affaire yi mën a synchroniser dal affaire bi accident la walla affaire bi ndogalu yàlla loolu ab laaj bu ñuy samp la na ñi nga xamante ne ñoo yor enquête bi est-ce que mën nañu jël scène de crime Bobu bloqué scène bobu nga xamante ne fa la fi yi am zone accident Bobu. zone de crime la wala zone accident kon loolu dañ ko waroon xol jël auto yi yóbbu leen diagnostiqué leen xool ndax oto bi éclaté wuñu ñu pneu bi exprès wala y a quelque chose qui ne va pas wala jinne ji nga xamante mo moo def liguey bi fofu la ko waroon defé xam nga xel du jëriñ lu lu xalaat xel du jëriñ lu dul xalaat Macky Sall lépp lay politiquer Macky Sall lépp lay politiquer ndax jamono jii sénégalais dañ ko désavoué woon ba mënatul génn jàkkaarloog ñoom waaye nag tiis bu amee ñëpp génn di wax ci tiis bi moom en tant que président de la république dina génn dem su les lieux ñëw jéem a wane ne moom président la pour jëlaat li nga xamante ne nii mooy li ko opposition bi xojee woon saa yu ko opposition bi xojee moom dafa war a toog di ñaan yàlla ñu ñàkk benn kilifa gu dañuy ci lool di ci c'est des choses on arrive plus dootuñu comprendre lan situation yi parce que yu bari daf fi xew yu bari am fi am nu muy lalee ay mbir que parce que j'ai vu ñi nga xamante suñuy wayjur lañ ci ay ci xulafaa yi nekk ci réew yi maanaam ay kilifa diine nekk ci kër gu ci nekk gis nañ ci communiqué bu ci nekk génn est-ce que ñoom laajul jamono ji ñu am ay conseillers yoo xamante ne ci fànn yëpp parce que jéey bi dafa laaj enquête bu rëy rëy rëy rëy waruñu jàpp affaire yi teg ko ci ndoddu chauffeur yi wax ne dañuy surchargé oto boo xamante ne cinquante personnes lay def ñu def ci quatre-vingts personnes naam mais loolu kan moo kan mooy responsable bi kan mooy responsable bi kan moo mën a jël bus boo xamante ne bus bi dafa war a am cinquante personnes ñu mën a am carte gris bi transformé ko ba mu mën ko approuvé muy daw ñan ñoo am doole boobu ku dul Macky Sall kan moo am doole boobu ku dul Sall kan moo am doole jël oto boo xamante ne nee nañu bu jugee France cinquante personnes lay def bu wàccee Sénégal oto bi ñu def ñu transformé ko mu def quatre-vingts personnes kan moo ko mën a jox licence bi nga xamante ne mooy carte grise bi ñu mën ko approuvé ba oto boobu mën ne léegi meuna na def cinquante personnes mu ci daw tegal ko ci porte bagage kan mo approuver loolu dul ku dul njiitu réew mi est-ce que loolu ndogalu yalla wala li nga xamantene ne ni mooy préméditation nañu xalaataat ñu jëlaat suñu xel yi diko nas diko ko noj nañu xol accident bi fi mu am ligne droite suñu ne ligne droite dafa melni mur ligne continue mur la bo xamantene ñaari auto yi manam ki créé ligne ligne droite dafa ne ñaari oto yi tellement que dafa melni mur mo nek foofu ñom ñaar waru ñu gisenté sax. donc waro dépasser sax ligne bi diko ko frôler pour jaar ci benen côté bi mais motax mané auto bi accident bi mais man dafa melni dañu yap ñaari auto yëpp ñu def ci bu nek GPS diko contrôler am auto bu top ci ginnaaw diko recontrôler contrôler bu ñu yebba moment opportun bo xamantene ne bu ñu tojee roue oto bi quelque soit la situation auto yi ñom ñaar excédé sen seen vitesse yi bële dina xaw ralentir bi ñëw nek vitesse bo xam dootu ñu mëna contrôler en plus la nuit donc am na luy cloche motax tax yi dañu wara a samp laaj ne accident la wala wala wala wala wala loxo nit a ngi ci. loolu la Sénégalais wara taxaw parce que tay Macky Sall mënu fi dem taxaw ci li nga xamantene moy hôpitaux yi. di def propagande ci hôpital bobu ah di wone ne affaire yi yaayu euh, ay ay ay ay cas yu graw mais 10 lañu won neuf yi lañu euh, neuf yëpp dañ leen interné fii ndaxte hôpital bu baax lañ fi am donc kooku moom mu ngi politique ci loolu benn lañ ci mujjee évacué ak yu demee noonu ñeneen ñëpp amuñu donc ñu ngi leen di gérer comme ni mu waree mais loolu lan waral pëne bi tojee foofu ci heure boobu bële tamit jugee fële ñu war a mën a ñoom daje te dajewul daje ulak bu ndaw daje ulak camion daje ulak saret dajewul ak dara lolu moo tax ma laaj man damay laaj di laajte ndax li.

lu ci bari xaw na xew na ci diggante bi ñu lay waaj a simpi di la waaj a nele loolu yëpp yow amoo lenn loo xamante ne yaa ngi koy xalaat di ko teg ci wàllum yoon ak lu nit ñi war a mën a jàkkaarloog yow ci wàllum politique ñu xam ne lii mbirum politique la lii ay vie humaine ñoo ci nekk nga jaxase lépp teg moo tax dañuy delluwaat di laajaat sénégalais yi lii accident la wala ab tayeef la accident la wala assassinat est-ce que zone bi nga xamantene fa la yëf yi amoon wër nañu zone bi ba teg li nga xamantene ni moy périmètre de sécurité bañ ken mën baña bañ dugg ci bir di fa laal dara wala ñuy xol ñi nekk ci bus yi nekk ay vivants ay les les les les survivants là les rescapés. est-ce que ñom enquête bi ma ngay tambali ci ñom wala enquête du mujjé am ci affaire bi dañuy wax ndogul yalla rek jël lepp teg ci chauffeur yi ñom ñoo surchargé. kan moo leen jox permission oto bu war am cinquante personnes ñu am ci quatre-vingts personnes bu oto bi di daw kan moo kan moo am doole moo am doole bi nga xamante ne yow yaa mën a jox ay nit ñu yor oto di daw ci biir dëkk bi kan moo am doole boobu. kon état bi ak entièrement responsable ci li xew entièrement ci li xew ba pare. xalif généraux yëpp def nañu li nga xamante ne ni mooy communiqué ci yëf yi xew y compris tous les sénégalais ñu ngi indi ñëw mais nag war ñu indi ñëw rek teg si parce que suñuy 400 doom jaar nañ ci géej gi dee ci loolu Macky Sall loolu nekk ci ndoddam ba léegi onze bébé yoo xamante ne ñor nañu xam fële nga xamante ne mooy Tiwaawan kon lii bu xewaatee nii ba Macky Sall mën a génn pour mën a kii ak seen bi parce que amatul fenn fu mu doon ba 31 décembre bi muy wax askan wi kenn déglu ko kenn faalewu ko ndax li ngi ci kanam mu jaral ko mu taal ci réew mi muy troisième mandat bi waxugu ci ba léegi loolu nag xam ne mënatul jàkkaarloo sénégalais di wax ak ñoom ci leen waaye xam na ne sénégalais moom bu dee amee rek ñu dellu ci ginnaaw taxaw di xaar bu dee amee rek mais du ñu jàngal li nga xamante ne mooy le futur lu tax lii am lan moo ko waral pour ëllëg ñu xool nag lan lii pour éviter lan la moo tax man damay demander ñu xool enquête bi. enquête est-ce que bi est-ce que exactement le moment parce que ñun pour exemple rek auto bo day daw à l'heure bu la moitié 120 km à l'heure par deux day nek 60 mètres donc pour nous freiné dina taxaw dina daw 60 est-ce que yéen may comme est-ce que yéen ngi dégg li ma bëgg wax oto buy daw cent vingt kilomètres à l'heure oto boobu su freiné pour mu taxaw pile day dina daw yeneen soixante mètres pour oto bi mën taxaw mënul pile net bu pile net oto bi dina direeku soixante mètres doog a taxaw moo tax ma ne accident bi am na lenn loo man momay may troqué boobu ñaari fan yi loolu moy loolu loolu loolu man moma moo moo jaaxal ba légui bëgguma ñu jël affaire yi teg ko ci ay concert de casserole bëgguma ñu jël affaire bi diko tek ci lo xamante ni alors que ndog ñew rek tek ko ci ndogalu Yalla, alors que loxo nit mu ngi ci mënu nekk comme par hasard ñaari bus yi bii dafa juggé fele bi juggé fi ñu daw ba dajé te daw ba dajé bob dañ ne la benn ci bus yi benn roue bi nga xamante moy côté conducteur mo éclaté pneu bob mo toj pneu bob bu tojee auto bobu mënul fexé mënul def lu traverser ligne droite bi li euh, ligne continue bi pour mën dem ci mbëkk mbëkkanteeg beneen bi mais benen bobu oh, vitesse bi mu ron daw mom comment se fait-il mom euh waji dépasser wu ko wala waji ji freiné wul à ba ki mën traverser mom dem dem kessé mom dans le décor man loolu moy sama problème laj la bo xamante motax mané xana ñaari auto yi gaay dañ ci synchroniser GPS xam exactement quel moment la affaire bi war a am man problème la parce que lii dafa comme comme film fiction quoi man affaire bi comme film fiction dafa ni fiction la ma tegal nañu assassinat la wala accident assassinat wala accident def ko 3 heures du matin pareil giraas jour dugg ci di daw ba mu rek ci camion la chauffeur ba dé mom néna xamul fi xamul xamul nu affaire bi chauffeur yi nga xam euh, Ousmane Sonko ne photographe bi bo yoyu même situation dal na sen kaw xel warul boyo yooyu nga xamantene ñom ñoo doon garde corps Ousmane Sonko ak chauffeur ak euh, photographe am lu mel dal na len ba ñak bakken goudi affaire bi am. kéro ki nga xamantene moy pap Sané wal fajri néna gaay gars nañ ko diko top est ce que ñom li nga xamantene moy kaw accident yu mel est ce que du lool lañ ko doon bëgg créer mom bu fekkon ci diggu yoon bi parce que bu fekkon gaay dañ ko bëgg faat. yor ay armes yu ñu ko bëgg a faatee moom mu taxaw di xaar ñu kii gaar yi ñëw braqué wàcc dañuy ñëw braqué oto bi wàcc jàpp ko dóor ko ba mu dee wàcce ko bàyyi ko foofu bu fekkoon ne gars yi bëgguñu ko woon créeloo accident boo xamante ne dañ naan Pape Sané moo doon dawal moom kese def sortie de bu fekkoon rey lañ ci rey boo xamante ne dañuy ñëw jàpp wàcc gaare jàpp ko dóor ko bal foofu mu taxaw sur place parce que moom dawatul woon taxawoon na di xaar pour gars yi doubler ko gars yi dañuy ñëw braqué ko taxaw ci kanamam def ko queue de poisson wàcc moom dootul mën di dem ñu ñëw wàcc encercler ko oto bi génne seen goon wàcce wàccee ko. est ce que du même chose bi ñu defoon Guirassy moom la doon waajal ki nga xamante ne nii mooy Pape Sané le journaliste de Walfadjri kon moo tax ma ne oto bii ñaari oto yi est ce que du synchronisation moo tax war nañu xam les chauffeurs ñi nekk fële nga xamante ne mooy garage yi. ba ñu fay juge kan lañu mujjee waxal téléphone wala en cours de route seen téléphone est-ce que am na kuñ ci doon waxal téléphone parce que man affaire bi mu ngi bëgg a jaaxal ñi nga xamante ne ñooy les rescapés est-ce que après accident bi amul oto bu leen romb vif dem est-ce que après accident bi amul benn oto bu leen romb vif dem te oto boobu bu fekkee daf leen romb vif dem mën na nekk oto bi nga xamante ne moom moo war a tirer bal ci li nga xamante ne mooy roue côté conducteur pour oto bi traversé chaussée bi parce que lii moom bu leerul man sama bopp damay jàpp ne théâtre la film la film la moo tax affaire du ma ko teg ci ay concert de casserole ay jinne yi fii ay affaire yooyu noonu man yooyu moom ay caaxaan la yooyu pour man ay caaxaan même gars yi xam naa ne ay ay ay borom ñu ngi seen affaire yooyu ñu nek rek di sacrifier ak di def lu nekk waaye lii nii moom politique bu rëy a ngi ci léegi nag vouloir faire de la politique c'est ay façon la sama adversaire dominé na ma sur tous les plans wona sénégalais ñu désobéir ma waa mu ngi progresser bëggon na bëggon na tek bëggon na tek ben ben ben ben wota nañu ndaje ma ndaje bi du fa am ils ont été intelligents waji ji répercuté fële am ñaari tribune am RFI am France 24 aduna bi yëpp du ci ciow le lendemain néméku tuuri gaay ngi commencé di dugal xaliss le lendemain ñu wara tek plateau néméku tuuri toujours si guddi rek 3 h du matin rek affaire bi am. bus bi war a jóge Tamba bi jóge Dakar ñu war a daje ci benn point boo xamante ne ma ne xanaa affaire yi nag dañ leen synchroniser dañ leen defal GPS dañ leen topp wala nu mu demee noonu moo tax nag rescapé yi bëgg naa ñi nga xamante ne ñoom ñoo des di dund ak ñi nga xamante ne ñooy blessé ñu ne est-ce que affaire bu ne tel ndax oto romb leen vif dem yoonam yooyu yëpp ay point la yoo xamante ne fii la ñu war a teg mbir mi parce que xam nañu ne xam nañu un véhicule qui roule à cent quatre-vingts kilomètres à l'heure oto bu defee freinage il lui faut pratiquement 80 km à l'heure pour, pour, pour Tahou. Vous faites 160 lay d'eau, il lui faut 80 mètres pour l'autre qui Tahou. Bon freiné, il est Tahou, pile sur Tahou. Non, non, l'autre qui est glissé. L'autre qui est glissé. Je vais vous dire, affaire. Les chauffeurs, il faut que nous affaire, qu'est-ce qui se passe?

le gars troisième mandat bi jaral na ko lu nekk nee na dee moo ko ko gënal comme dee moo ko ko gënal nag comme dee moo ko ko gënal diabolisation bu nekk dina ko teg ana concert ak casserole bu bu bu lu mu lu mu joteeg lu mu joteeg lii li nga xamante ne mooy mooy accident bi lan la jotal accident bi concert de casserole lan la jotal accident yi ñu naan day woo jinne yu rëy yeeg jinne yi kii xanaa kon Sénégal bi Macky Sall faloo la ñuy doog a wax waxi jinne Ablaye wad bi mu fi nekké bi bato bay suux xana kon ñom biñu ñëwé ci réew mi à partir de 2000 la wax ki mais Senghor manifestant yi nga xamante ne nako mom ko Senghor à son époque bobu gaay yi dañ doon concentré casserole xam nga ñun duñu jang ci li nga xamante moy li wess motax tax jëm ci kanam duñ ci xam fa ñuy tek suñu tank dañu nekk dekk bo xamantene suñu xel duñ ko faral di di di di di di xol di xol motax man affaire bi luma jaaxal la

loolu jaral na ko lu nekk jaral na ko lu nekk parce que jamono ji tey Macky Sall moo lëmbe yëf yi Macky Sall moo yëmbe yëf tey ji Ousmane Sonko bu jugoon ne day dem Kaffrine te def ko waroon def dafa waroon dem Kaffrine comme am na programme boo xamante ne teg na ko ci wàllum euh, sécurité routière mu ñëw wax ci na wax taxaw poser les mêmes questions que je me pose parce que une ligne continue c'est comme un mur Waruloko ko donc nak affaire bi jaxal ma lol lol lol lol ci ñaari bus yo xamante danaka même taille lañu am ci ñaari bus yo xamante danaka même taille Wara yapp même nombre de personnes di daw goudi. ñëw ba ci ben problème boo ben ben benn dëkk boo ne rek tëf affaire yi ne tëf Motax may laaj ndax rescapé yi gisunu ben auto wala ñaari auto yo xamante dañu romb vitesse bi yeufi xewé. man moom loolu bëgg naa ko xam ci ci ci enquête bi loolu enquête bi bëgg naa teg ñu ibbi enquête ci loolu mais bu ñu toog ci plateau yi ñu ñuy nelawal chauffeur du ñu respecté chauffeur yi dañuy surchargé chauffeur yi mais on wu où on est où Sénégal yéen ñëpp xam ngeen lu fa xew xam ngeen ne oto yi bu waree def vingt cinq cinquante la ci gars yi di dóor Sénégal xam ngeen ne bu waree def vingt cinq cinquante lay door mais bii bii bii bii bii bii bu bees bii am na lenn lu ci rax te dafa dal giraas yi di ab député la daloon chauffeur ba dafa jékki-jékki rek ci ci taatu camion ba lañ ko génnee moom mort sur le coup giraas yi moom nee na xamul affaire nu mu demee Pape Sané nee na gars dañ ko topp di ko gars yi toppee mu mu mu gis ne ñi dañ koy topp mu jéem a kii est-ce que gars yi bëggul ñu ko woon créer genre yëf yu mel nii parce que xam naa ne bu fekkoon bëggoon ko attenté kon dañuy ñëw ba gaare ci wetam ñëw door ko ay bal dem seen yoon mais comme dafay flagrant ñu bëggoon ko moom buy def sortie de mu defal ko boppam ñu ne nañu nañ ko topp ba benn zone boo xamante ne foofu peut-être moom bu boobaa yëf yi dina mel ni ne accident bu naturel. kon gars yi am na nañu laboratoire yoo xam dañuy créer ay accident. doon ndax lii nag lu ñu samp mbir mi accident la wala mu ngi noonu wala tayeef la. kon maa ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di len euh, ñaanal jàmm beneen yoon jaa ngeen jëf